nuyu ne leen bu baax jaajëfal leen ci ànd bi ngeen ànd ak seen site internet bii di net bi TV li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañu koy doo rek ginnaaw bu ñu ko dalalee nag ci émission bi ñu dippee grand plateau bu ko doon amalee foofu ca diwaan bu Sen TV kii di Maimouna Bousso daal dina yëkkati ay kaddu rek ne nag dañu ko sàcc sàcc gu métti mbir mu nu mel nag mu ngi xew ci guddi guddik alxames jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mars bi tombel nag ak date bi nga xamante ne rek ci la doon participer ci boobu les débats télévisés moom présidente bu mouvement des forces citoyennes citoyen daal di xam ne nag ay defkatu ñawteef ñoom ñoo daal di rek ñëw ca këram waaye nag mu nekk ci yoon ndax nag mbir mu nu mel daal daal dinañ koy def moom nag mi nga xamante ne rek moom moo bokk ci membre bu ko membre de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi Maïmouna Bousso daal di lay xam ne nag ñaari téléphone am portable la ñu sàccee ak pièce d'identité am ak permis de conduire am ak passeport am yooyu yëpp rek dañ koo daal di rek yóbbu mbir mu nu mel nag jamono ji ki nga xamante ne rek moom mooy Maïmouna Bousso daal dinay jël ab dogal nag nag ngir déposer plainte contre excès ci autorités yu compétent yi fi nga xamante ne rek moom mooy ci commissariat bu Wakam moom nag ma ngay encouragé bu baax nit ñi nga xamante ne rek jamono ji képp koo xamante ne rek dox nga ba taseeg document yi nga xamante ne daal moom moo ko moom ma ngay sàkku rek nga woo ko wala képp koo xamante ne ku ko jege nga ngir mu mën cee jot ba tey bu ñu jugee ko foofu nag dañuy àddu rek wax ci musiba baba kumba bi nga xamante ne rek moom la élèves ya nekk ci école élémentaire bu soxna xari Penda Fall ci diwaan bu Mbàkke nag di dund jamono kenn ci ñoom di woy ci bu Moustapha Gueye ay atam toll ci juróom-ñeenti at rek lañ moo daal di ñàkk bakkanam ñi ki àllarba bi ñu génn ginnaaw rek buñ ne ab camion moom moo ko daal di rek fàdd moom nag ki dawalkatu oto boobu nag dañoo wax ne rek moom ci jëmi boppam rek dafa ñàkkoon lii di contrôle ci la daal di rek mbëkk élève boobu nag mbëkk bu doy waar la ko daal di mbëkk mu ñàkk bakkanam sur le sang naam sax demoon na ba jege côté école am bi kàddu yu nu mel nag ko expliqué du kenn rek le directeur école bi di wóotu turu Youssou Loum yéenekaay bi di libération moom moo ko daal di xëy fësal nag ni ci alxames yi ginnaaw bu mu déclaré ne chauffeur bi ci jëmmi boppam ba mu mbëkkee boobulee tout tànk rek da doon jéem a daw waaye nag ay conducteur maanaam ay dawal katu Jakarta ñoom ñoo ko daal di topp rek ba jàpp ko nag yóbbu ko ca police jamono ji nag ki nga xamante ne rek moom mooy niw ba ñu ngi ko yóbbu ca hôpital Matlaboul Fawzani bu Touba ñu ngi koy ñaanal yàlla yërëm ko te xaral ko aljana jërë ngeen jëf ci teewlu bi bu de notification a am yeneen xibaar